moo tax les petits poussés Petit ils ont poussé. de chance parce que dans cette élection on va avoir quand même de grands ensembles. Il y aura beaucoup de cœurs brisés <laughs> alors Serigne Euh, dañuy jot information. tey présentatrice nga. nekkoo fële boo nekkee fee ngay ruube lan mooy man du ma seetaan yooyu. sama tànk yi waaw film yooyu du ko seetaan. fi mu ne sama làmmiñ bi xaw a kii waale. surtout xamante ne ñëpp ci piscine la ñuy ah, a wax. jàpp ma lii may def nii. léeg-léeg <laughs> bu fekkee daa am lu bëgg a wax moo gën. sëriñ alors. Euh, ñu ngi jot information selon laquelle Mame Boye jaawoo dafay jàppale Pastef ci élection présidentielle def na benn communiqué sax comme ça ñu ngi jàkkaarloo communiqué bi muy xam ne ni que le 24 mars 2024 le président El Hadj Mamadou Diaw a participé pour la première fois en tant que candidat de la coalition à l'élection présidentielle euh, 2024 à cette occasion il a présenté euh, le projet de société euh, jubbanti suñu gaal gi qui vise à bâtir un nouveau Sénégal et à favoriser la réconciliation des Sénégalais. Donc euh, ce jour-là, le peuple a choisi le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Euh, ce choix exprimé par les Sénégalais doit se refléter aux urnes. moom loolu la wax donc nee na euh, à cet effet moom il le soutiendra donc ni la ko bindee en toute logique et conformément à sa démarche de rupture la coalition Diao 2024 va voter pour la coalition ou bien la liste PASTEF dirigé par le président Ousmane euh, Sonko donc euh, les choses se dessinent El Hadj Mamadou du qui soutient euh, Ousmane Sonko <laughs> qu'est-ce que ça te fait. waaw bon xam nga loolu. Euh, Salma fi mu may delloo. Mhm. dans un premier temps dafa am foo fu ngeen fu ngeen daanelee foofu laay mujjee nag. parce que mooy information bi mujj. wàcc waaw. Mhm. waaw ñu traité ndoo ko ensemble. Mhm. mais xam nga déjà Pastef li mu def. dafa jël responsabilité am ak ay courage te dafa may delloo ci benn expression bu siiw bu Abdou Diouf utiliser woon. Mhm. en 1981 bi mu naan jàkka jàngoog ku mun na noot. Mhm. mooy bi muy autorisé euh, bi muy reconnaître yeneen parti politique yi nga xam ne si clandestinité lan doon lan doon kiiwee. Mhm. bi mu gën a yaatal ouverture démocratique bi. dañuy jàkka jàngoog ku mën na nodd tey. fameuse expression boobu mun nañ ko utiliser ci contexte bi mooy li Pastef def. Mhm. jumaa jàngoo ku mun na noot. mun na noot waaw. ku ne nag loolu nag ça demande beaucoup de courage. Mhm. parce que tey élection yi ak enjeu yi ak wax ju bëri ji ci am wax ju bëri ji ci am ku ne samp sa ndënd. Mhm. ne gars yi dañoo échoué ku ne nag mënoon ngaa am sa courage dem ak sa parti bopp wala nga dem sa mouvement bopp ko def da ngay xaru bu bopp eh, sa baay baar ki yàlla am na ñoo xam ne mm. léegi bu ñu demee si élection mm. dootu ñoom kese ko defati de mm-hmm. noonu la waroon demee nag ku ne nag la ngay wax mm-hmm. ñu xam en réalité sa poids politique moo di lan mm-hmm. lan ngay tekki bu boobaa buñ ca pare ku nekk dina xoolaat mooy kan dana mën a mesurer mooy boppam mais tey lii tekki ci coalition yeeg alliance yi dafa wane ni en réalité ñoom xam nañ ni lañ taxaw di wax doole dañuy wax yoruñu ko. amuñu ko. Mhm. Pastef qu'on le veuille ou no c'est le parti majoritaire au Sénégal loolu yàlla moo ko dogal. loolu nag mhm. dañagul dañagul. Mhm. gisaguñ mu dañ. la leen fal ñu ngi fi ba tey. comme dañoo wax ni ña faloon weddi nañ leen découragé nañ ci ñoom marchand ambulant yi génn nañ ci ñoom étudiants yi génn nañ ci ñoom. waa comme ñooñu génn nañ si ñoom bañ mën a alléger si yéen kon kay na ku nekk dem ak demu boppam. Mhm. te li mu def nii non seulement dafa sécuriser le système électoral Pastef dafa sécuriser waat encore une fois le système électoral xam nga lu tax. Mhm. mais manœuvre politique politico politicienne yi doon am si biir. benn sëriñ ñaa bu tekkiwul dara si réew mi yor ñetti nit rek bëgg a amati nit ñëpp. Mhm. chaque jour wax wax wax wax wax ju bëri yaakaar ni ñëpp moom lañ topp. ñëw la nga amu si benn coalition dem assemblée nationale teg ay dilam coalition bi am lu mu dogal d'accord si mu génn ak mandat am. Mhm. yo génn dem yóbbaale posam. te kenn du ko mënal dara. Mhm. maintenant nag politique traditionnelle boobu moo jëm si yoonu jeex. Mhm. léegi nag lu tax ma ni dafa sécuriser en te léegi bu ñu demee si nii. si bañee seen bannière bi. bannière kenn du leen fonto. bu ñu demee assemblée nationale nii bu leen yàlla defalee ñu dem assemblée nationale. ñëpp xam ni waaw Pastef ñëpp a xam ni. Mhm. ci bannièram lañ demee. Mhm. kenn du leen yeb kenn du leen fontoo. Mhm. ku mënul coopéré wu ca la ñu bëgg. ci projet la ñu namm Sénégal yi ñu dàq la ca biti. mooy dëgg nga nga démissionné boo démissionné ñàkk sa sa sa mandat. parce que dafa am lu ñu yéene pour sénégalais yi. te la ñu yéene pour sénégalais yi assemblée nationale la mën a jëmmoo maanaam la mën a la mën a la mën a taxawoo lañ ko mën a construire. te tey nii ñu bëgg a demee bu fekkee ku nekk da ngay ñëw langaam pour ànd ak ñoom dem mais am na ñoo xam ne c'est des dealers gëmuñu leen. Mhm. doole yi Pastef lañ gëm mais gëmuñu leader ya fa ne. dëgg la après bu ñu demee bu ñu gisul seen bopp ci assemblée nationale gisuñu seen bopp ci liste yi. ñooy mhm. génnaat yor micro yi ne Sonko dañu trahir Sonko dañu war loolu la ñuy waxaat mhm. donc kon jàpp naa ne ñoom ubbi nañ wane nañu yoonu. te yoon woowu nag ku amul courage doo ko jël de. maa ngi nii damay dem. Eh, mais est amoo tuuti déception parce que man noon laa ci toll parce que bëggoon naa xam tey poids électoral Bougane Gueye Dany. léegi man fa laa jëm. lan la xam nga man ci logique laa jëm. chef de l'opposition quand même. il faut na nga wan yow xam nga Salma Salma je suis dans l'analyse politique et je veux rester dans l'analyse politique. waaw. ñoom ñooñu ñëpp ku si nekk mun naa def analyse ci yow. ñu ñu ñu bokk coalition xaw ma vaar xaw ma nu mu demee noonu. waaw ànd. nangul nañ leen ko. Mhm. mais ne serait-ce que laa ko waxee woon. Mhm. pour la cohérence et l'objectivité je ne suis pas d'accord ak Bougane sur le plan politique je ne suis pas d'accord. Mhm. ci choix bi. parce que am na lu ñu ci ra oui je ne suis pas du tout d'accord. c'est mon point de vue. moo tax ma ne je suis dans l'analyse politique. je suis totalement libre pour mun a joxe parce que bu fekkee yàggul dara nga ni xalifa Sall ci vidéo bu def viral mhm. dafa trahir toute une génération ku trahir toute une génération compris yow mhm. kooku waratul mérito yow sa considération nee na Khalifa Sall en personne léegi kooku waratul mérite sa sa kii ne sa resque nag pour la cohérence et l'objectivité mhm. sama aqulaay taala laay waxee ne sa resque pour la cohérence et toujours loué constance am ci espace politique bi mais lii mu def nii ànd bi cette fois-ci je pas du tout d'accord du tout d'accord fan laa doon d'accordé mhm. bu doon ànd na moom Anta Babacar Ngom saa loolu laa wàcc ba pare lekk Pape Djibril Fall mhm. bu ñu àndoon sax mani ba tey ñu ngi seen constance parce que ñooñu noonu kenn gisagoo ci kenn ku ñu mën a ni kat kii nekkoon na fi laal na ci nguur gi yoroon nañ ko fi ministre et cetera tout ça loolu sax ñu ne ba tey mi ngi si logique am. mi ngi si constance am jooykat yuy ànd waaw. tu as vu mën na ne Pape Djibril boobu ngay wax. Mm. Pape Djibril bu ñu demee ci analyse politique rek. Mm-hmm. mais nañ waxante dëgg Pape Djibril dafa wàcc yoonam. bu baax politique du malin malin malin demi de. Mm. politique science la. Mm-hmm. xam-xam la. Mm-hmm. léegi nag yoon woowu yoonu politique boobu boo ca wàccee. mooy yow wàcc nga jeex na c'est fini. Mhm. classé nañ la léegi. moo tax nag tey gis nga Sonko mii la ko may lii yëpp du dara nag du rafetaay du taar du bët yu rafet. Mhm. du élégante du dara xam nga lan la constance ak cohérence doo nga ko ko may. Mhm. te pourtant moo ne de moyen état yëpp jël nañ ko contre moom. ci moment yu metti njabootam nekk ci traumatisme bu absolu mu mënoon a daw ne waxeet ne lii Sénégal jaraluma ko. mais dafa resté ci conscience am ba sénégalais yi ñëpp ñëw coopéré ci projet am ak moom ci projet am. dëgg la maintenant nag boo bëggee mel ni kooka boo bëggee mel ni kooka da ngay jéem a roy ci constance am ak cohérence bi mu nekkoon. Mm-hmm. logique booba. Mm-hmm. mooy dëgg Pape Djibril nag constance booba la ko sénégalais ya ko ya amoon estime yu bëree bëri. Mm-hmm. amoon ci moom cohérence boobu lañ gisatul. loolu nag c'est un constat bu ñëpp mën a def. bu ñëpp mën a def. moom gis nga dem assemblée nationale bi principe la war a doon waaye warul nekk ay question de malin malin malin malin malin demi mhm. warul nekk loolu mhm. xam nga lu tax ma ni principe la war a doon mhm. Cheikh Omar wax na lu am solo affaire yi damay garder suma cohérence ak suma constance dem assemblée nationale am benn voix ñépp xam ni benn voix laa am waaye teewul garde naa suma légitimité garde naa suma suma suma suma cohérence ak suma suma constat. mais si bu la leeree aussi que plus forest sax munoo koo am tamit. mais il faut nga la ngaamu. waaw mais la ngaamu bi buruxlu léegi la ngaamu boobu. moo lay désorienté ci sa idéologie. bu dee am nga ko bu dee am nga ko. Hmm. léegi nag moo tax ma ni woon moom en principe moom ak Bougane yëpp dem am zéro voix garder seen crédibilité garder seen constance ak seen légitimité ci espace public bi. Hmm. moo doon gën di la ngaamu si ñoo xamante barki Demba Ndiaye ñoom ñoo ne dañu war aw askan. Hmm. moo doon gën. mooy dëgg kon jàpp naa ni. ñoom ñëpp Khalifa Sall mhm. ci élection yi cinq defe naa la am. Mhm. suñ ko calculer nit ñoom ñëpp daal 4 pour cent la ñoom. léegi xalifa mhm. dafa taxaw dafa taxaw dafa jar taxaw seetlu. xam nga sénégalais yi léegi loo leen lebal ñu fay la ko est-ce que xam nga loolu. cash Salma sénégalais yi boo leen wanee constance. ñu fay la am na ñoo xamante ni c'est des chroniqueurs comme Cheikh Omar Talla mais liberté bi Cheikh Omar mii am mën a surculer nit ñi di ko kar naan ko Cheikh Omar nangam nangam nangam am na ñoo xamante ni bu ñu jubee mbedd. bu ñu gisee cinq minutes fa toog masque ngay takk dangay takk masque. manifestation am na ku dàq ci woon Colobane. masque ngay takk da ngay mel ni Colobane la dem ga booy tëbali ko. da ngay mel ni ku Covid rek di takk masque saa su ne. xam nga <laughs> yooyu yëpp dafa am. yow boo génnee Salma ni ngay bellee si dëkk bi. waaw dëgg la sa xol di féex. sa affaire leerul de. doo dox ñett ñi Salma ngay Salma. kii rek. Salma mënoo dox cinq pas yu mat ci biir. Eh, dëkk bi quand deux célibataires se la Sonko ne Salma. <laughs> yaa ngi liggéey liggéey la Lyon lañ vu. Mhm. mais am na ñoo xamante ni loolu sañuñu ko si biir dëkk bi parce que xam nañ la ñu nekk. du constance te du logique. Mhm. kon moo tax sénégalais lu tax ma ne loo leen labal ñu fay la ko Khalifa Sall moo toog fii mhm. charte Yewwi Askan Wi am lu mu tere mu def ko. Mhm. muy compromis ak compromission ak le président Macky mu dem toog te toog ba mu fa toogoon taxul ay mbiram sotteeku. Mhm. Mhm. léegi lan la leen fay sénégalais yi fay ci élection yi. ah ay nen. ay nen yu bari <laughs> non seulement ay nen ba pare ñu seen parti tas. parce que xalifa boo demee tey ay cadre yu bari ñoo génn ci parti parce que nee nañ ko mënatoo dem. fi toll nii exigence yu politique bi laaj. ak fi ko gars yi soxlaatuñ mag mm. ay xale lañ soxla mm-hmm. yu bëree ji donc kon jàpp naa ne coalition la boo xamante ni man de si suma ultime conviction